بوك ييغنا بون سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي تي يونتام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موغي بالحق نيب تاي بالو حق نيب يالا نانو يالا بودي جيغل تومب بي ني فاتلانتي دا نيكوي تنك تي لو خامني ñu bari xamaguñ ko buñ ko xamee it nanguwuñ ko muy ku leen diingat walla ku diingat seen waay ak lu mën a doon ci ñoom diingat nag daa bari ay xen waaye bañ cay tànn tey mooy diingat guy defar diingat guy jagal ñu xam ne diingat moom diine moo ko yoonal diine moo nangu ku gis lu mu war a diingat bu sàrtee tënkoo ci bu sakkee sàrtee daje na ci moom mu sañ ne déet daal di cay teg baax su ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk ñi gëm yàlla ñépp ay bokk lañ ñenn ñu nekk nag lañ bokk dafa am nu ñu koy séq innama almuminuuna ixwatum fa aslihu bayna axawaykum kenn ku nekk bu jàppee ne pénc mam dëkk kenn la ca waa pénc ma waru faa xool lu yàq pénc ma ndax su yàqoo moom la yàqul su yàqoo ci kanamam te mënoon koo diingat diingat guy dagal saa bu bëggee liggéey ci ci ma day defar loola ba noppi door a defaraat la mu bëgg a def muy liggéey yu bari ci aw yaramam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na diine ba mu jeex bu la ci kenn nax laa biire dong la ñu ne ko kan mu ne ngir yàlla liggéey yàlla ci jàmm ñaareel bi it jàllale njàngale yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko ndax ci la yam kan la ñuy diingat ne ko fi nga tek sa tank du fa laabire ko ne ko tek ko fe mu ne rawati nak ñi jitu ci kanam julit yi ñoo ci raw waye ñepp top tax ko xamne ne bokk yi su ja su laaj su jàddee ku top ci ginnawam bu gisit yoon wi da nga na ko topal sa ndey jawal topal sa càmmoñ lu ko moy dana dugg ci kam duggaale si ñepp loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ad diinu an nasiha qulna liman ya rasulallah qaala lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammatihim li tax nag diingat guy dagal munta ñàkk ci diggante nit ñi nun nit ñépp saa suñu xëyee njuumte mi ngi nekk suñu gannaaw dañu dàq wala mu ni suñu kanam dañu dogale motax mag dan mag ni dan ñaan ne yalla na la yalla musal ci am ndap akum ndox am ndap moy lay jóge ci gannaaw nga geesu nit ki geesu mu faagaal gal ko wala mu ne ci kanamam xamul fu mu koy jaar mu diko jëm sak fu mu koy jaar loola gal ko yalla ci kon kenn ku ci nit ku ne ci ñun aajana lool ba munta ñak ku koy diiŋat diiŋat guy dagan loolu li muy tegtale mooy su boobaa jullit bu nekk ak moroom ma day mel ni ab seetu ci moroomam lu jëkkut ci moom bu ne mukk ci diw la jekk ne ne jëkkut ci moom itam dina jëkkut ci moom ndax diw mën naa gis mën ngaa gis lu diw tut gis mën ngaa dégg lu mu tut gis mën ngaa dajal ak lu mu tut dajal moo tax noppi ci lépp du yëfi jullit bokk yi li tax ma ne ñun ñëpp dañuy jiw ñi rek la yàlla musal ci njuumte ab yonent ak i malaayika yonent yi ci seen bopp kenn ku ci nekk jànkonte naag diingat yoo xam ne lay niru nit ca moom rek ca moom moo ko waral waaye gisuñ ci moom lu ñuy xeet bu ñu demee ci alxuraan suratu yusuf dañ ci fekk ñetti lépp sayidina yusuf alayhi salaam wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhana rabbihi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لطخ إنه من عبادنا المخلصين منتدف لنا يلا نمنا بتنيوم واجر لين نيوم لن يتدى معصوم كان كتنا يتدك معصوم يلا مونو ينتبك وإن لم تفعل فما بلغ رسالات رسالته والله يعصمك من الناس شيني بخي لنبني فخي من الله na ci sam xel dal duñ la mënal dara duñ la mën a téqatal dara kon sayidina yusuf alayhi salaam yàlla dane ba ko ak nit bëggee dikkal la dox digganteem ak def leneen munu koo def ndax saa su yàlla ci kanam mu ne ko jàkk innahu min ibadina al muxlasin muxlas nag ak muxlis du benn muxlis ñun ñoo koy natt ñun nit waaye muxlas nag yàlla koy natt seytaane si boppam xàmmee na leen ba muy wax ba ne la uxwiyannahum ajmaina illa ibadaka minhum almuxlasin dana leen bewloo ñoom ñépp ba yàgg mu xam ne yàlla yàlla seytaane li muy bon bon xam na ne yàlla moom kenn la illa ibadaka minhum almuxlasin bam mu des ñi nga xam ne jaami yàlla yi nga xam yàlla moo leen tànnal boppam defar len bokk yi yooyu bu fekkoonte ne kenn dana mucc ci diingat ñoom ñu mucc ca am na yonente bu mag ci ulul azmi la bokk lu ñu ko waxoon sayidna nuuhin alayhi salam fa qaala almalau alladina kafaru min qawmihi ma naraaka illa basharan mislana nit daal nga ni ñun yemoo ca waaye wa ma nara wa ma nara tabaaka إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي nit kese nga yemoo ci waaye ñi la topp sax duñ nit ñi gën ci nit ñi xanaa loola di nga fa la yam buñ ci yemoon mu tane wa ma naraka tabaaka illa alladina hum arasiluna badi ra wa ma nara lakum alayna min fadl gënoo fi kenn bal nazunnukum kaadibin bal li wér wóor sax mooy yow mii njortuñu dañoo wóor ne ci ñii nga bokk at naa ñi doon wax muy wér loolu alxuraan la ko bal na suñu ko mu ñu ko def ne loolu lañu waxoon ko kon bokk diingat amul kenn kuy dund ko ci mën a mucc kan nag moom lañuy natt mu feesal ba bu gisee lu yàqu ci penc yi mën a nangam yàqu ci penc mi kan lay doon bu mu doon koo xam ne day wut tur rek bëgg siiw naan maane nangam ba mu fi defee nangam maa ko ne déedéet kooko feesalul àndarja waaye bu mu doon koo xam ne it daa am lu mu ciy séentu loo xam ne ëllëg si biir man na ko caa dikkal déedéet waaye kon bu ma ko tënkee mooy koo xam ne daal daa xam ne lu yàqu moom la yàqal lu yàqu moom la yàqul ñaareel ba it mu di ko wax te yàlla dong tax yàlla daal xam na lee ma nga yàq te bu yàqoo day law di law ba yàqaale moom lim yoroon lépp moom la yonent bi di leeral ne man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi mooy diingal képp koo xam ne am na kàttan gis lu dul noonu njàkkare su amee kàttan na ne déet lii du fi amee fa in lam yastati' fa bi lisaani su ko munta dindi nga xam ne amul kattan googu mu ne lee dama ma nga yàqu xanaa lu may saña di saña di saña sañ ne gone gee kaas yam yor dagalu leen ko ba dama ko daaneel wala gone gaa ngay daanu wala ma ngay lakk loolu di koy defar buñ ne mukk bàyyi na gone yi ñuy dox seeni soxla bu leen neexee ay kaas bu leen neexee daanu sawara bi déedéet boo ko seetaanee te newoon fa dañ naan lu tax nga di ko seetaan ba muy daanu sawara wala lu tax muy tuuti kaas bi te nangu lu jege la motax muñ nga yonent yoro alayhi alayhim wassalam deug deug nak julit yépp war nañ ko jang ci ñu nangu ñu di leen diingat rawati nak lo xamne mom nit ñe la ko jox yonent la lañ yalla lañ ko joxon waye ñeneen ñu ci des ñepp li jot nit ñe leen ko jox kon ki diingat day tàmbalee ci bopam xol ba xam mom jak na wala jagul su jàppee lañ ko santoon ma nga ca ku mu gis nekkoo ca mu ne la sa waay du noonu su la ko waxee jaanam wàcc soo ko defee sa jaan wàcc soo ko defut jaanam wàcc na moom looloo ko ca waroon <clears throat> moo tax yàlla na ci alquran lu mën a dal nit ki bu leen gënalee wala bu leen gënalut yàlla duma ma wàcc mukk di ko def na mu gëne yéen ñi yéen a ko mën a def na mu gëne yéene koy diŋat diŋat koy defar inna allaha la yugayiru ma bi xawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon kenn ci yéen doon ab jullit dëgg dëgg dëgg te du lim mu bëggal boppam lay bëggal ñëpp lim mu bëggal boppam mooy lu ci nekk jàkk mel na war a mel kon boo wëru si ta seetaan kuy def lu jàkkat nga ne ca pat ndax sama yoon nekku ci déedéet waaye nee na it de leen dimbalante ci seen biir ginnaaw ay bokk ngeen dimbalante ga rawat nag buñ tooñee sa mbokk wala sa mbokk tooñ ñu ne kuñ tooñ sa mbokk rek xam na ni ngi koy dimbale dem wallu ji ko mu ne ñoo yam bu tooñee da nga koy wallu ci da nga koy diingat ne ko ni nga def doon unsur akhaka daliman aw mazluma waaye ci waxi worom xam-xam yu yàgg yi itam jëlee nañ ci ñu ne ci lut bi joxut mbokkum julitam hadiya ju gën wax ko baat yoo xam ne bu ko seetloo ba dem ba waxtaan ak ngegenaam ngegenaam dana xam ne kii li ma wax dëgg la su ko dee jëfe ak su ko dul jëfe ma hada muslimun li axi hadiyatan afdala min kalimatin taziduhu hudan aw tarudduhu an rada moo tax diingat buy defar kenn waru koo bañ kenn waru koo bañ suñ bu mag bi ñu dëkk lool daanaka ci diingat la doxe ba natt bi ko dal bépp dal ko dañ ko ne da def nangam mu xam ne loolu yàlla santaaniwu ko yonent bi santaaniwu ko moom ci boppam bëggu koo def ñu di ko ca diingat di ko diingat ba boole ko ak nañ ko booleel ñu ne ko nuus téye fanweeri at ba ni ko yàlla jëlee ci seeni loxo jël ko moom kon boog mi tollu nenn ba gisu ko diingat yonent yi ñëw gën ci nit ñi dañ leen daal dingat waaye alxuraan la ca ne ci aay yi tegtale ne kenn sëñta bañ ñu di ko dingat dafa bari kon man man nañuy féete ak kañ féeteel waaye nag bu ñu ba lu mu def rek na la nañ koy dingat mën nga ko bañ a fësal ci kaw ñëpp yi dégg waaye rocc ko dem ba ca moom nga ne ko lii kat du ndax ki ne ci mbedd mi wala mu ne ci pénc mi la muy gis kana ca biir néeg ba du ko gis mën na ko bay gis te ne mën nañu nett lekk ko noo xam ne nii bokkut ak nam demee raawati nag ñu farak moom boo farak moom moom da ngay seet la mu bëgg a dégg ko nga dikk ko su boobaa lu yàqu ci mucc yàlla nañu ci yàlla musal am na yeneen fu Sayyidina Huudin alayhi salaam di wax ne wa ila aadin axaahum huudaa ba muy wax di wax di wax ba jaanam di bëgg a wàcc dana uballirukum risalaati rabbi wa ana lakum naasixun amin lii ngeen def dama koy diingat waaye diingat guy defar la li ma ne doo xëy xëy ne tànjang yàlla nee na woon koo fekk mu tiim ay bant naan yàlla la sax bul ko ne du yàlla diingat nga ko tegaloo ko fa dara lu mën a dégg ndax ak déggam foofu la tolloogul da ngay ànd ak mom di wax di wax di wax bam nangula diglu ba nga ba ba nga koy mën a ci lam nek diko andi ci li nga nek te moy deug wala tasubbu alladhina yad'una min duni illahi fa yasubbu llaha adwan ilm kadalika zayyanna li kulli ummatin amalahum kenn ku ne lam nekk day def ne noona la léegi nag ji nga guy defar benn jullit sañu koo bañ waru koo sañ a bañ su fekkee xam lan mooy ji nga guy defar waye bokk yi suñu borom subhanahu wa taala wacce gu fi ko xamni ni lum def rek na la yonent bi ko yàlla wax da ko wajal neena du waxe bakkanam mukk te lay tak ta ci lolé moy musu leen wax lu leen neex mus ta la leen neex mu leen ko wax wa ma yantiqu ani al hawa in huwa illa wahyun yuha la cey firne moy amna ko ku ñu waroon a dog loxoom ñu ñëw di ko ñaanal njëkk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam naa ko mooy kii ak kaa daf leen a xaaju na leen Fatima bint rasulillah su defoon li kiy def ma dagg loxoom nii ñu nar dagg loxoom keneen ki yàlla moo ko digle wa saariqu mooy sàcc bu góor wa saariqatu mooy sàcc bu jigéen faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah wallahu azizun hakim kon boog jii nga tangu noonu bari nay xeet lool waaye ba cay jagal moom kenn waru ko bañ ne ko ku nekk tàmbalee ci biir këram ne ko ku nekk tàmbalee ci biir këram nangu waa këram di ko diingat ci lu muy def te waru koo def lu mu wax te waru ko woon a waxe noonu fu mu jaarale ab miir te waru ko woon a jaarale walla boog peinture bi sax ci gësam da rafet waaye rafetul ci waa kër gi sañ nañ koo di nga ne ko tey ngaa wut peinture bi mel nangam war na ko nangu waaye waa kër ga waru ñëw sañ a bañ boroom kër ga di leen dingat xorom si ëpp na kum naqari déggoo njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa war bu ëllëgee rek nga ne du ëpp na mu ëpp woon si ëpp na noona daa tàng ba ëpp noona donte am na si dingat yooyu moom dingat rek la ci xeet yu bari lay bokk dugal sa loxo yëkkati ni suu kenn mënu ko lekk ak reewande la na ko nit ñi muñu muñu ko na tibb ñaari tibb ne dafa wex xorom mu ñu su ko lekk reewande dong la du diiŋat daa saf suukar delloo wala safut suukar reewande la yàlla na yàlla dafa dëgg topp te xam ne xam-xam bu am njariñ te mooy diiŋat bu guy jagal day dugg ci liñ waxoon ne alxikmatu dallatu lmumin anna wajadaha fa huwa axaqu biha lu baax luy defar fu ko ab jullit dégg doonte wuñ ko ci moom la jël ndax yëfama lu baax ab jullit ko moom yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri lmuslimina